au par exemple ñii di génn ñëpp les bacheliers on a du mal à les orienter ñooñu fan lañ leen di reverser université publique yi mënatul jël école euh, état mënul fayal ñëpp université privée aussi les écoles privées c'est pas possible donc il y a des gens yi nga xamante ils sont laissés en rade qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens là day doon ay ay ay ay ay jafe-jafe ça veut dire que suñu système xalaatuñu nest pas prévoir ñooñu nga xamante ni dañuy génn fan lañ leen tàggat mais aussi ak suñu système ñun lan la ñu soxla ñun en tant que réew tey euh, heureusement maa ngi dégg président Macky Sall euh, donc euh, bi ñu xam bi nga xamante ni pétrole bi feeñ na nee am na ay jeunes sénégalais yoo xam ne jël nañ leen dinañ leen tàggat parce que xam-xam màcc si wàllub gestion pétrole ak affaire yu mel noonu donc muy li nga xamante ni c'est à saluer mais dañ ko war a gën a a biral parce que forcément dinañ soxla peut-être main d'œuvre wala soxla ingéniosité bi nga xamante ni peut-être duñ ko mën a trouver après sur place on sera obligé di dem di wuti ñeneen ñuy ñëw donc léegi la war a tàggat nit ñi euh, préparer leen ba nga xamante ni pétrole bii nii bu ñëwee lépp lu lu si génn rek mu doon gëneel nest pas ñu bañ a gis ne comme ñeneen ñi gisee ni pétrole fépp fu mu fu mu ballee rek donc day doon li nga xamante ni malédiction la si yenn dëkk yi ñun nañu ñaan yàlla mais ñaan doyul mais ñaan day ànd ak action ñaan du tëdd rek ñaan ginnaaw bi nga ne yàlla dama bëgg lii mais da ngay jóg nga nga nga taxaw ngir loolu mën a nekk donc euh, ñu ñaan mu doon li nga xamante ni bon tous les sénégalais vont se retrouver et qu'on aura responsable en 2024 nga xamante ni sera pas un amateur n'est-ce pas il aura le Sénégal au cœur mm. n'est-ce pas <laughs> euh, chevillé au corps oui oui c'est bi nga <laughs> xamante ni mais mu bañ doon ay cadre rek comme ni wax toujours mu doon li nga xamante ni daf koy dëgmal fësal ko si euh, actes yi muy posé au quotidien ba sénégalais yi mën a vraiment transition bi ñu jëm ni ñu mën ko réussir ba nga xamante ni tous les fils du Sénégal et toutes les filles du Sénégal dinañu retrouver wu n'est-ce pas xàmmee seen bopp ci réew mi ba kenn dootu soxlaati aussi Sénégal de tous pour di jéggaani di jéggaani euh, di dem di Méditerranée di fa di fa faatu wala dara wala dem fële fële ci États-Unis nii nii Caragua ay yooyu noonu ngay traverser àll bi et cetera nga xamante ne dañu toog fii gëm seen bopp xam ne ni lépp mën na leen fekk fii mm-hmm. mais ça vraiment si une mentalité à à en place et bon dañuy dundee yaakaar. waaw avant ñuy ñëw ci perspective yi Pierre-Ahmed euh, pour pour 2024 ak au-delà euh, politique bi ànd ak fitna ànd ak yaradiku pour yow kañ la tàmbali ci Sénégal. <laughs> <laughs> ma ma wax wax ji hein y en a l'impute à Ousmane Sonko ne moom moo fi indi cette nouvelle façon de faire de la politique moo fi indi gatsa sa moo fi indi résistance alors est-ce que mun nañu justement euh, tracer dans le temps euh, que loolu mi ngi démarrer à partir du phénomène Ousmane Sonko wala sa c'est c'est ça va au-delà waaw hmm. c'est antérieur en tout cas à l'avènement de Sonko question bu c'est pas une question très difficile mais c'est une question complexe mm-hmm. li tax question bi complexe mooy on ne peut pas imputer la responsabilité d'un comportement euh, de masse à une seule personne loolu man d'accord ma ci loolu de la même manière on ne peut pas imputer l'échec de toute une masse à une seule personne ni la réussite de toute une masse à une seule man dama jàpp ni sénégalais boo gis li ñu bëgg ci sénégalais yépp ci lu baax mu ngi ci moom la ñuy bañ ci sénégalais yépp ci lu bon mi ngi ci moom sa revient un peu la philosophie de l'ange du gardien euh, et, et, de l'ange de la bête man loolu laa jàpp tey am na foo xamante ni ku ma fa xose gis jikko boo xamante ni yaakaaroon ni sax am naa ko ndax sénégalais la fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo li ñuy li sénégalais mel yépp mel naa ko li ñu war a wax kañ mooy naka lañu def ba yegg ci a un niveau boo xamante ni l'animosité est la norme loolu lañu ñu war a wax lan moo tax Sénégal bi nga xam ne nee nañ c'est un pays de dialogue ñu dem ba mënatuñoo dialogue. Sénégal bu doon am gouvernement euh, ba ubbeeku opposant dugg si ku mel ni Ablaye Wade du temps de Diouf. oui mais loolu yëpp dialogue loolu yëpp dialogue dialogue voilà ce Sénégal là à ce euh, ah, ah, Sénégal des acteurs mais parce que l'animosité a été entretenue l'animosité a été financée mm-hmm. loolu mooy dëgg l'animosité a été entretenue et financée par des gens qui ont intérêt qui tirent parti de cette animosité là mm-hmm. des gens qui ont intérêt à diviser les Sénégalais parce que Sénégal fii lu ne fi lu ne nag. kon force occulte yooyu. lu nekk lu lu ne lu ne lu ne xaw na xam nga man du ma wax ay force occulte mu mel ni damay def du mysticisme wala des trucs comme ça c' est des forces d' intérêt qui sont là qui ont des intérêts dans ce pays là. fii ci réew mën nañoo nekk fii mën nañoo nekk feneen mais parce que nous sommes dans un xam nga il faut prendre le monde tel qu'il est plus de frontières et surtout en Afrique où on ne demande même pas de visa. où on n'a même pas la souveraineté sur nos frontières. on n'a même pas les moyens de de de sécuriser nos frontières que ce soit nos frontières maritimes ou terrestres ou ou même aériennes amuñu moyens yooyu donc que les forces que les forces dont tu parles là des forces d'intérêt les groupes d'intérêt soit au Sénégal ou ailleurs ça pose aucun problème c'est la même chose c'est la même chose donc Sénégal toll na foo xam ne comme il a dit découverte pétrole ak gaz am na fi mais il y a des pays yéen xam nga chaque fois j'entends les gens dire parler de la malédiction du pétrole mhm. mais am na ay dëkk yoo xamante ni xamuñu malédiction boobu màkk dañu xam malédiction boobu xamuñu ko et c'est un des grands des des grands pays producteurs de pétrole et cetera et cetera il y des pays yoo xamante ni le pétrole a amené des guerres les ressources naturelles ont amené des guerres et il y a des pays qui sont exempts de ces guerres là donc mënuñu wax ni rek pétrole fu mu am dafay yëngu mais tout dépend de la puissance et de la force des institutions ak nit ña nga xam ne ñoo fa nekk lan la ñu bëgg ci seen dëkk ndax seen dëkk jaral na leen comme déet wax naa la fi sànq ne man gisuma fi benn débat buy jëmale Sénégal kanam lu dul waxu xaalis xaalis moo intéressé nit ñi nit ñi xaalis lañu bëgg xaalis la ñuy xëy di ko wër bis bu ne te ki fiy joxe politique fii Sénégal c'est l'État parce que l'État mooy joxe marché l'État mooy construire l'état mooy réguler l'état mooy dagg suuf joxe nga def programme immobilier et cetera et cetera donc fii état moo fi ne foofu la ñu toll ñun on n'est pas un pays un pays libéral comme aux États-Unis où les gens ne parlent du président que pendant les, la campagne fii politique moo ñuy dundal matin midi soir jëlal n'importe quel journal 31 1er janvier ba 31 décembre nga jël journaux yépp lan la ñuy titrer politique politique politique politique à longueur de journée même l'esca l'espace scolaire a été politisé mm -hmm. il y a les mouvements d'étudiants d'élèves tout est politisé dans ce pays là donc il fallait s'attendre à un moment ou un autre que ça éclate man forme de politique bi ma fi gis nii pour man c'est des c'est des actions et et c'est même pire que que que que que qu'un mouvement de grève estudiantin c'est aussi bas que ça. loolu parce que le